néegab yàlla bu rëy bu taaru bu rafet bii nga xam ne jëfal nañ ko yàlla ci capitalu Sénégal ci biir xolu capital bi muy dakaar ci biir Dakar Colobane jumaa ji di Masalikul Jinaan événement bu rëy la pour mboolem jullit ñi ndax néeg bi néegab yàlla la te néegab yàlla li ci yàlla wax ci alquran mooy moom moo ko moom moomalewut ko keneen wa anna al lillahi fala tad'u maa allahi ahada euh, ñun nag dañ ci am ay taxaw seetlu ak i jàngat jàngat bu njëkk bi mooy du ñu yéem ñun ay jullit def yitte ba tabax ba yàlla waaye li ñuy yéem dëgg mooy fi jaarowaay bi jaar ba loolu am loolu danay am ñun luñ ci mën a jàngee lu ñuy jëriñ bu njëkk bi mooy néeg boo gis néegab yàlla la waaye am na waayu yàlla joo xam ne ci moom la sababoo mu samp ko fa bu ko defee loolu sax mooy indi ñu jël jàkka tuddee ko diw te fekk ya jàkka ji yàlla nee na jàkkaam la waaye ka nga xam ne nag moo ko def muy jàkkaay yàlla kooku yell na ñu ñu tuddee ko la nga xam ne moom la defal yàlla te loolu ku la ci jamit dana ko def boo demoon ba ci masjidul haram daan nga gis baabu maliku fulaan baabu maliku fulaan yooyu yëpp mu ngi cay am te malik fulaan moomu jàkka ji jàkkaay yàlla la waaye def na ci effort rek ba porte ya fa nekk yëpp bu ci nekk rek am na kuñ ko tuddee ci njiit ya fa mos a jaar wala ci borom xam-xam ya wala ci buur ya fa mos a jaar kon it waliyu yàlla bu ñaqalee yàlla ba tabaxal ko ab néeg néeg boobu yell na ñu ñu ñu ñu ñu ñu tudd ci aw turam donte lépp ci yàlla lay dellu sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu moom la jumaa ji tuddoo ndax jumaa ji feeñ lenn la ci fayam yi ko yàlla di fay waaye fan la jaar ba am loolu loolu laa soxla dafa am aaya bu sama borom waxoon ci alquranul karim laay jooju fireeku ne ci suñuy bët ba leer naññi ci jëmmam ji ak jumaa ji mooy dafa waxoon ne innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi gayri xisaab yàlla dana fañ dana fay muñkat yi seen ak fay ba mat sëkk te lam leen di fay du lu kenn di mën a régler maanaam ku muñ te yàlla tax jëf te yàlla tax yàlla fay la fay gu mat sëkk waaye fay goo xam ne am xel du ko mën a pekk loolu mooy innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi gayri xisaab sëriñ bi dafee nekkaloon yàlla di jàng di jàngale di yar dong yi ci yoonu yàlla fitna xew ci digganteem ak tubaab bi ndax loolee mu doon def dëppoowutoon ak li tubaab bi bëgg ñu kereel ko ay fitna yu rëy rëy ci gàttal ba àtte ko ci weeru septembre 1895 le 5 septembre ca Saint-Louis ne dogal nañ ne dañ koy génne réew mi far la force buñ ko fi jëlee fa buñ ko fi génnee fan lañ ko jëmee Gabon le 18 ba ci weeru septembre lañ ko indi fii ci dakaar muy capitalu Sénégal boobu Dakar nekkagul capital bi fii la sëriñ bi di war a jógee pour dem Gabon li ma soxla tukki mi mat na sept yu mat sëkk ba tegal sept mois ba tegal ay quelques jours ay fitna képp la te fitna yooyu yëpp ay nattu yu war a jur ay natt waaye ñaari guddi ngay gis sëriñ bi di ko cité naan saa yu fàttalikoo la ca xewoon xelam day daj ci mu gàddu jaasi ak i E, e, guntux pour dem jaamaarloo ak tubaab bi xeex ak ñoom mooy ñaari guddi yi nga xam ne moom la amoon fii ndakaaru ba wax ko ne ida dakartu dalika almabita wa dalika allaina wa tathbita taarat ila aljihaadi bil armaaxi nafsi lakin dabba anni almaaxi mu ne saa yu xelam dajee ñaari guddi lam ca dajoon bakkanam da koy bugg suub ci mu gàddu jaasi ak i guntax dem jaamaarloo ak tubaab bi xeex ak ñoom mu ne waaye saa yu buggee def lool rek yenentu mooy dox digganteem ak loolu xam nga li tax bakkanam di ko yebal ci mu jug def jihaad bi armah bakkan li gën a bari lam lay yebal du doon lu yàlla di gërëm du doon luy topp yàlla waaye moom li ko bakkanam bi doon yebal topp yàlla la que yàlla moo joxe ndigal bi yàlla moo wax ci alquran ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir gaa ñi nga xam ne dañ leen a tooñ ba tooñ tooññar bi leen man yàlla jox naa leen ndigal ñu fayu ci kaw ñi leen tooñ te yàlla moom jox leen ndigal nag àttan na dimbali leen ba ngeen gañe combat boobu kon am na ordre bi ci alquran yàlla waxaat ci alquran ne wa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma uqibtum bi suñ leen mbugalee suñ leen tooñee sañ ngeen a fayu lu tol ni luñ leen tooñ kon alquran jooju moo taxoon bakkanam mooy xelam di ko jox naan naa jël jaasi naa jël fett pour dem jaamaarloo ak tubaab bi xeex ak ñoom mu ne waaye bu buggee def loolu rek yonentu mooy dox digganteem ak loolu puisque tamit ba alquran waxee loolu daf caa teg wala in sabartum la huwa xayrun lis sabirin su ngeen muñee de loolu mooy la gën te yonentu daa bëgg moom cheikhul xadim mu bokk ci ñu gën moo tax yonentu bi di di dox digganteem ak jug jël jaaseeg fetal ak yu mel noonu di jaamaarloo ak tubaab bi mu topp ndigalal yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci muñ loolu muñ googu laa wax ne résultat bi ko ci yàlla defal innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi xayri xisaab ñëw na mooy la doon objectif am mu ko doon installé doon ko samp tubaab bi di bañ ba teg ko fitna yooyu yëpp am na ko te gàdduwul jaasi xeex ak ñoom euh, septembre boobu ñu ko génnee woon fii ci 1895 ren yaa ngi ci lan 2019 diggante bi boo ko xoolee ci atu tubaab bi rek mu mat cent 114 ans muy siècle bu tegal fukki at ak ñeent loolu mooy limu saar yu alquran yëpp. loolu mooy limu bismillahi rahmaani rahim yu ñëw ci alquran yëpp bañ egsee ci at boobu muy cent quatorzième année bi lan la ko yàlla fayee mooy lan al masjidul jaamiu turu yàlla wi ñuy tuddee jaamiu moom it cent quatorze masjidul jaamiu bi mat ñu war koo ubbi ñu tiree fa leçon wu kon bu ñu naan la bu ñu naan la ku def yàlla fay la ku muñ yàlla fay la du loo xam ne waxi mañ la rek waaye lu existé la ku jëf rek xam parce que moom dem na ba yàlla dogal mbooloo nekk ci ginnaawam mu am man-man boo xam ne sañoon na jaamaarloog tubaab bi te bu jaamaarloo woon ak moom bu leen fi jëlee ut dana wàññi seen doole bu baax waaye yenentu dox na digganteem ak loolu mu topp ndigal loolu muñ ko muñ googu tey moo ko juree muñ ji moo tax képp ku di jullit muñ nga ci jëfam ji yàlla fayee ko tey euh, am na sax mbokk mu ne ah ñaari guddi i ndakaaru yi de jumaay masaalikul jinaan fay na ko mën na ko ëpp naa wax bu jumaay masaalikul jinaan rek di fay kon boobaa perte day am te moom daf ne woon tijaarati lan tabuura man sama commerce du perte lii kay dañ naan lenn la rek ci fay gi lenn la ndax yàlla ba mu ne innama yuwaffa sabiruun ajrahum bi gayri xisaab la wax lu xel manta kalkin ba dajal ko loolu laay fañee fayee muñkat yi te moom ci muñkat yi gën a rafet ak muñ ci ñooñu la bokk beneen jàngat buñ ciy jàngataatee mooy waxu waliyub yàlla moo waxu yonentub yàllaa hem du mos a dëñ jamono bi mu koy wax yow mi teew bu sa pas-pas dëgërut da naan xanaa kii ay jinne da koo jàpp fekk lu jamono yàgg rek waxam boobu di gën a doon di dëgg yàlla def na woon maam Ibrahima wooteel sama jaam ñi ñu fekk si ma fii aji aji ci sama néeg bi wa azin fi naas bil hajji ya'tuuka rijaala wooteel boo wootee dana ñëw du loolu la ko waxoon maam Ibrahima a salaam woote kañ lañ commencé di wuy ji di bàyyi ko min kulli fajjin amiq bi fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee kon gis nga fa mu wootee fañ koy wuy see bi da doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yoonu géej gi nga bàyyi xel bi muy wax wax ju sakkan ji muy wax am na bayit mbokk yi ñu ngi koy tasaare fan yi lu bari wax na ko ci ñeenti version ci li ma jot a gis yu bokkul waaye bi ci gën a fës rek mooy lil muntaqa wajjahtu fi ndakaaru zikran bihi qad kibal makkaaru dafa waxoon ne bi muy génn di dem géej di liggéeyal yonente sallallahu alayhi wa sallam date bi la tudd ak bis bi waaye foofu kenn ci turu yonent bi la jël muy almuxtaar xarajtu yowma sabati thamina achar li xidmati almuxtaari fii chehri safar waaye bi mu ñëwee nag ba ci ndakaaru foofu muntaqaa la la wax ak muntaqaa mooy kan kim doon liggéeyal mooy yonent yàlla muhammad salaa sallam sakk nag waxu wali yu mooy tur yi muy tudd bi muy tagg yonent bi salaa sallam ci ay turam tur wu nekk am na lu cay feeñaat ci mbiram boppam moom cheikhul xadim radiallahu anhu mooy appareil bi mu jëfee jëfalee jëf ji yonent bi maanaam bayit bi rek laa bëgg ñu settantal ko def ne jublu naa yonent yàlla Muhammad mii nga xam ne moom la ñuy tuddee almuntaqa mooy ku ñu tànn ki te maa ko jubloo ndakaaru lan laa ko jubla dikkir dikkir boobu julli mu ci julli ci yonent bi mu ngi ci jàng alquran mu ngi ci zikkër tur yàlla mu ngi ci li zikkaru làmboo yëpp boo ko boolee tey mooy masaalikal jinaan kon ci ndakaaru laa jubloo yonent yàlla Muhammad lan laa ko jubloo mooy liggéey Masaalikul Jinaan mu ne waaye nag bii xat kub kibal makkaaru ci loola ma mun muntaqaa mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mboolem pexekat yi doon pexeel diine te mooy ñi ko doon pexee rek nee nañ ci lañ këppoo ci lañ daanoo moo tax kon liggéey bi dafay nekk mbégte pour jullit ñëpp waaye nekk ak ngaañ pour lan mboolem kuy noonu diina nga settantal waxu wëllu yu ni muy sakkanee jumaa ji biñ demee ba yegg ci di ko xelaat fi projet bi jaar yëpp ci Serigne Saliou ca euh, euh, Cheikh Baara ibnu Cheikh euh, Cheikh Mouhamad Cheikh Baara ibnu Cheikh Mouhamad al Fadal ba ci Serigne Sidi Muxtaar mi nga xam ne fii ñuy tuddee Masalikul Jinaan tey ci ab aayam la ko yàlla sottalee mu teg xeer wa waaye Serigne Mountakha la ci jiitaloon Serigne Mountakha moom la yàlla dogal liggéey bi mataate ci moom mu war koo ubbiwaat. kon loolu muntaxaa ji yonent bi doo gi Cheikhul Khadim doon tànn bi muy tudd bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñaat na ci muntaxaa mi nga xam ne moo ko war a donn moo koy donn te ci moom la liggéey bii di feeñee waaye da ngay gisaat ne bayti bu njëkk bi ci wàllu chiffre ñi koy gëstu dañ ciy gisaat lu yéeme mooy bam ne lil muntaxaa wajjahtu fi ndakaaru bu ñu déchiffré loolu rek day tolloog 1441 mooy at bii ñu toll tey ci hijriya pour war a ubbi jumaa ji kon jàngee nañ ci wax ji daal ne liggéeyal yàlla moo am solo waaye muñ te yàlla tax fayam yàlla rek moo xam nu mu toll jumaa ji li muy rëy rëy 32 milliards yi ñuy wax yëpp ay jullite ko ci def benn yéeféer deful ci alalam waaye liggéey bi li muy rëy rëy as fay la ah, lenn la rek ci fay goo xam ne yàlla fay na ko jaamab yàlla bu doon liggéeyal yàlla di liggéeyal yonent yàlla Muhammad daj ci coono yu rëy te muñ coono yooyu ñun nag ñu war cee tiire leçon ndeke ku muñ muñ waaye tamit ñu war cee tiire ne ndeke waliyub yàlla waxam du mos a dëñ ay waxam dafay sakkan lambu ay junj yu baree bari ba ci tey ki toog jotaayam ni loolu feeñee ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah